nuy naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan mbay sim leexuy forux ma wax la li xew ci réew mi sunu gaal cey Sénégal lii de mooy foofu am na ci ñooñ loo leen sàng-sàng du tee seen kii ni wàng ca ginnaaw am na ñoo xam ne kay kenn mun leen a tàgg ba du tawte ci réew mi sunu gaal gi lee ma ne ñii laa la wax ma ne mbir mi ma ne justice bu doon taw la mën nañ ne tooy nanu xépp ndax taw na seen kaw dënne daanu na seen kaw ubbil yéenekaay bi ca Kolda ci jëbi boppam am na ci ñooñ ñoo xamante ni laa la wax engrais bi nga xamante ni moom la nguur gi état état bi subventionné laa la wax jox ko baykat yi la ñu jël doon ko jéem a yóbbu fa ne seetal ma lii ñoom day cinquante tonnes lañ leen mooy ñu jëroon ko noonu dañ koy rawale di yóbbu fa Guinée ay waay baykat yee ko moom moo lii lum waay waay cërub nit loo bëgg-bëgg ba fa xoolal ma lii yëgle kaay gi naan man ngoyes nañ leen jàpp nañ leen ah da ngay seet lii rek cinquante tonnes engrais ñu naroon koo génn ci réew mi lée mani séquestration ak viol lañ nemmeeku l'observateur ko xam la ci réew mi lée ab malade mental ndaw soo xamante ne xel ma neexul la ñaari nit yóbbu ca place plage Mali bu laa la wax ci guddi gi nee dañuy sangoog moom ay eh waaye ndaw sàmmatee ko fa di ko fi yolla def na ko sudul noonu man dañuy xamalu ne seen xel nañ leen rëccu ñu de moo am na ñoo xamante ne kaay ma xamala fi mu toll nii tembe rëccu ñu ña nga ca Tamba <laughs> leptoo faytoo gat sa gat sa gu mat sëkk laa la wax lees nar a nemmeeku nag ci li nga xamante ni moo di wàllum justice gi lee yëgle kaay gi naan maan kaay ma xamal la magistrat yi nga xamante ni ñoo sonaloon Ousmane Sonko di ko pamti pamteeka jox toor ñoom ñëpp ne rëkk nañ seen ndigg métti na tar na ca ñoom daaf daaf lakke du fa nee xës seen kaw lii quotidien yëgle kaay ni ma magistrature le grand chamboulement kaay ma limal la ma am jàllo ma nga ca Tamba Abdou Karim ma nga ca Tamba Mamadou Seck ma nga ca Tamba libération yëgle kaay naa man ko loolu nag kenn mënta fàtte ma am jàllo moom moo nekkoon doyen des juges ca Ndakaaru Njaajal Diop Abdou Karim Diop procureur de Dakar Mamour Seck yëgle kaay Sénégal Diop El Hadji Issa Ndiaye moom mi nga xamante moo prononcé woon la condamnation de Ousmane Sonko ñoom ñëpp a nga fa tàmba laa la wax ca xée ña nga xamante nag ñoo ci jàppoon laa wax doon jox Ousmane Sonko dëgg laa fi ñu toll nii yokkal nañ leen lii quotidien yëgle kaay naan maan Abdou Aziz Diop moom mooy le nouveau doyen des juges d'instruction du tribunal de la grande instance hors classe bu Ndakaaru Ndiaye Dial Diop Ibrahima Ndoye yëgle kaay gi mbir mi kay bu doon ma waa APR jóg takk taxaw ni noono nanguwuñu de ànduñu ci d'accord wuñ ci lu nu mel mani gis nga ñun soxlawun ay règlement de compte de reddition des comptes de mën naa nekk waaye règlement de compte moom soxlawun ko fenn ci réew mi askan sunu gaal waa APR a ko xamle laas yëgle kaay naan man ña nga ñoo jóg taxaw yëkkati seeni loxo naan noonu ndax dañ noo fàtteem lu xew ana lu xew xew ñëw eh ma ne ñoo ngi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la teer bi jaar seen kër ubbil yéenekaay bi victime teer bi ba nega ni fi mu toll may wax ak yow amunu fu nu dëkk du samay kàddu nay leer laas yéenekaay ko xam ne nee na les victimes du terre toujours sans abri amagunu fu nu ne lii jër te waxtaane ah kay leneen li ñu war a waxtaane yëglekaay gi naan maan moo di ndox mi yée bu nu wattuwul réew ma askan sunu a a sunu gaal contrat avec Aqua Power ñoom waa Aqua Power dafa mel ni contrat ba nee na kipp nit kitt laa la wax dagg téppit ca xarandel la nga xalam demoon na bay neex de yëgle kaay gi naan maan kaay ma xamal la mari taw ñaan mel ci jëmmi boppam waa envoyé d'urgence à moom lan ko defoon waaye roi ba recevoir ko Ben Salman recevoir ko amul kenn ku ko recevoir ci ñoom ay waaye mbaadu waa Aqua Power dañoo bëgg a nangu seen contrat réew mi askanu sunu gaal gi li nga xam ni moom dong kepp rek laa gis mu war koo jëmale ca kanam du leen lu dul mbay yëkkati Pape Birame Ciss lay wuyoo autosuffisance alimentaire gi nuy wax laa la wax bu nu ko bëggee faaw nu ànd ak mbay mi delluwaat ca mbay ma ca tool ya bay murit yi ci réew mi askanu sunu gaal biir réew ak bitim réew ñëpp di ànd maase booloo di bay seen waar ci màggal gi lée mani safar gi foo romb laa wax teg seeni kaftéeri café ak lu muy seer seer sax di ko séddale bañ ci ànd ak xaj ak seen ñiy togg di joxe tàmbalee ko première safar ba le a jaar ubbi réew mi quotidien di nga gis nataaluk tereng ba ni fa fang moo xam wata yay dem moo xam saxaar yay dem waaye ba ci moto yaak vélo yay dem daw ndànk dal ndànk da ci baax ndax Touba moom dëkk la bopp boo tee yàgg-yàgg dem àgg waaye boo fi nekkee ci yoon yi falax-falaxi boo watul di nga dal ci bërëb mbaa bërëb dal sa kaw <laughs> kon nag mooy tondu ko def ndànk sëy laati bu baax rek ba sama clavier ñu dem ba jàmm ak salaam lii dégg doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaa ngeen jëf jërë ngeen jëfaat jaa ngeen jëf beaucoup encore une fois yéen ñi nga xamante ni yéen a may teewlu ak itam euh, di ma bàyyi xel bu baax a baax a baax ci revue de presse bi tarkal la ci xalaas maa waaru bi itam gis naa ne tamit yéen a ma fay commencé teewlu foofu tamit di leen fa commentaire xoolal da seetaan xalaas maa waaru wëlbati ko ko seetaan sa xalaas maa waaru ci xalaas maa waaru bi boo boo boo seetaanee revue de presse ba génn rek da koy daal gis mi ngi noonu ci kanam donc abonné partagé tamit da ciy baax dégg ngeen maa ngi leen di nuy bu baax a baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay dellu tamit di leen kontaane waaw di leen wax ni bëgg naa ci yéen de man ne man ni kontaan naa ci yéen man na maa teg ci yéen waaw loolu ci waaye man waaye engrais bii nga xamante ni nag yow baykat yee ko moom ah amoo ci lenn looy def lu dul jël engrais bi naan da nga koy jéem a yóbbu naan da nga koy génne ci réew mi foo ko jëmee foo ko jëmee boo yóbboo loo koy ah waay yee man am na ci ñoo xam ne kii leen a tàgg tàgg ba dum tawte ci réew mi rek kenn mënu leen a sàng sàng ba seen loola du ñu fan nga ca biti rek ah lii de lii waaye jaww lii de lii nag lii nag lii nag waruñu ko wàcc noonu mu déedéet ah waaye jaww sëriñ Abdou Salam Sarr dañ ciy def ay tegtal ak jàmm bàjjen xujo wax ci Cheikh Bamba ñu ngi def ci ay ñaan lii moom faw nu wax ci nag waaw ah l'observateur ma ma ko indil mi ngi. waaye nag genn beneen kaa bu doy waar bi mooy kaa bi ah ku wérul ngeen téye ci ab ab ab plage ca Malibu guddi ne ci moom rek sëgg ci moom di sangoog moom ak wéyal waaw lii nag lii nag lii nag moom ñaawut bëgg jigéen toll na fii wala àgg na fii ah respecté leen seen bopp waaye seen bopp respecté leen ah waaw la ma diggee da waaw dama koy def xoolal ma kii ma li nga diggee woon nag heure bi jot na li ma ma li maa ko diggee maa ne képp ku commentaire ma tudd saw tur waa ñi commentaire ñëpp dinaa tudd seen tur yi loolu kay nekk di jéem a fàttalee koy wax képp ku commentaire dinaa tudd saw tur waaw waaw maa la wax li loolu loo ciy fàttali ah jërëjëf maa ngi bëggee Laat Diop di ko jaajëfal di ko kontaane di bëggee Thierno di ko jaajëfal daam Basel maa ngi koy bëggee Papa Thiaw sama xarit la moom nee na ma damay bëgg a commentaire waaye du ma mën a commenter Papa caw waaye mu bàyyi mbay caw waaye sama xarita nag ah, waaw waaw ma ne ñaan gi talaata la ñu ñaanal sunuy waajur yàlla xare leen ci àjjana yi gën a kaawe maa ngi bëggee xari aan waaw ma may may sax maa ngi bëggee Abdou Kane Papa Ndiaye Cheikh Wade Maam Omar Diallo Binta Sarr Cheikh Omar Diop Mamadou Lamine Ndiaye Keba Dia Mamadou Makhtar Diagne sama xarit Pape Diop waaye xarit ma Mamari Faye noo def Baye Modou Yad mbaa am nga jàmm Modou Lamine Seck sama xarit Lamine Curay Lamine Touré Jaja Diop Mamadou Diouf itam maa ngi koy nuyu si laa ñoom Dame Kunta ñoom El Hadj sama xarit la Saliou Sylla Ami Jabaay mbaa am nga jàmm Cheikh Wade maa ngi bëggee bu baax a baax Mamadou Cissé sama xarit la. moom mooy Diop itam papa Ndiaye nee na ma yow rek laay topp di waaw loolu lu ci bàyyi man saam Seck ab sa guy mbokk yeeg xarit yeeg dëkkandoo yi doomi nday doomi bàyyi waaye pirum ndëri jaxate ana gaañi maa ngi bëggee ñëpp ah di kontaan ci Gosaas Sédhiou Matam ba ci Kicoor fu waaye ne bëggee naa la jox la sa wàcc waay ak ca gaañi Pulo ma Ndiaye dem maa ngi lay bëggee kon gars yi ñu def na def noonu ba subaa ak jàmm ak salaam. jërë ngeen jëfaat waay jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci tepp geeg teewlu gi jaa ngeen jëf waay